bonne transition xam nga en parlant de respect le prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour wax la lislaam fi mu teg nit laa wax nit dafa am bés mu toog am benn ku décédé ñu koy yóbbu di ko suuli mu jóg taxaw ñi mu toogaloon ne yow kii nga tax nga jóg taxaw bokkuñ diine mu ne leen jóguma pour bokk nañ diine wala bokkuñ diine dama jóg parce que doomu aadama la par respect à l'être humain donc l'islam foofu la toll xam ngeen fi may bëgg a waxee l'islam foofu la toll yàlla amul lu ëpp nit si kaw suuf doomu aadama rek moom la sàkk jox ko loo xamante ni joxu ko euh, beneen beneen beneen beneen bindeef et c'est important donc day ñëw beneen bi respect bi nga wax tey dafa am loo xamante ni Sénégal fa la tàmbalee ba ñu yëgsee tey fii nga xamante ni moom lañu ñu yëgsee bokk na si respecte nit respecter kilifa diine waaye itam surtout nit ku nekk nga respecter sa bopp. Mhm. parce que tey bu fekkente ne man respecté wu ma sama bopp du ma respecté aadama du ma la respecté du ma respecté Kodior du ma respecté keneen ak keneen ak keneen respect bi ci sa bopp d'abord lay tàmbalee mooy lan looy bañ yow ku la ko def ak looy bañ yow ku la ko wax bu ko wax keneen bu ko def keneen. Mhm. exemple tey xoolal Sénégal ak àddina bi fi mu toll Sénégal la ñuy waxtaan. plus particulièrement ay nit dañuy nekk fii ci réew mi mhm. am ñu nekk bitim réew en longueur de journée ils tirent sur nos guides wala nos chefs nos chefs religieux ak religion bu ñu mën a nekk parce que ni nga gisee ak ni mu gisee bokkul wala ni ngay xalaate ak ni muy xalaate bokkul wala li ngay wax ak li mu wax bokkul manque un manque de respect notoire kuy saaga papay jàmbur nag ak kuy saaga yaayu jàmbur kooku kuy saaga papaam ak yaayam bu la saagee bu mu la metti parce que nit li nga soxla sama nit bu saagee way juram way juru jàmbur nee na saagul kooku boppam la saaga muy benn beneen bi ci des souvent tu temps ñoom ñiy def loolu mm-hmm. ñuy wax kilifa yi nañu wax kilifa yi nañu wax kilifa yi nañu wax yaa ngi dégg may ma trent secondes rek kilifa yi nañu wax kilifa yi nañu kilifa yi ñu ngi wax li nga bëgg ñu wax ko la ñu waxul te duñ ko wax parce que demew ñu sa conscience demew ñu sa xel demew ñu sa xalaat te li ma gëm ba gëm ko mooy ñu ngi wax waaye fañ war a waxee la wax la ñuy waxee parce que nit du fa foo toll rek di wax tey président Macky Sall la ñëpp di wax naan ne kilifa yi di wax ak ñoom. c'est la ri réalité mais ñu ngi wax ak moom fa mu fa ñu war a waxee ak moom barka dem ba demul Touba seeti sëñ Muntaxa lañ wax ku ko fekkee kenn ñoom ñaar rek ak yàlla subhanahu wa taala te gëm naa ne la mu ko war a wax wax na ko ko li ñu bëgg nag mooy sëriñ si ak mm. kilifa diine yi muy lislaam bi ak chrétien yi toog seen kilifa yi toog si tale yi ak réseaux sociaux yi naan président defal lii bul def lii waxal lii bul wax lii olof nee ne kilifa kenn du ko yedd si mbedd dama jox exemple Firawna Ramsès II dafa toogoon ne moom mooy yàlla iblis di ko ruux di ko jay ba mu ne mooy yàlla iblis dafa daw parce que bi firaw na waxee loolu iblis dafa jàppoon ne balaa muy daaneel kàddoom yàlla alaka alagaal iblis mu daw mais teewul bi yàlla di yoon yonte yàlla Moussa alayhi salaam ak Haarun alayhi salaam dañ leen dem leen si firaw na beew na bépp beew mais bu ngeen demee wax leen si ak moom si yar ak teggin malgré tout ce qu'il faisait malgré malgré tout ce qu'il disait si yar ak teggin amaana dina dellu gannaaw si xalaat yu ñaaw yi mu am ak kàddu yu sofaanu yi nga xam ne moo koy yëkkati Firawna fi mu toll woon si mbewte kenn tolloo gu fa si àddina masuma dégg ku taxaw fii ne kaay leen man mii may yàlla yaa ngi dégg mais malgré tout ça mm-hmm. yàlla na leen dem leen ngeen wax ak moom si yar ak teggin benn mag daf ma wax mu ne di nga yëkkati kàddu jëmale ko si nit koo xamante ni soo paree salive boo waxee ba pare salive yi ngay onnaat mm-hmm. dana nekk si yow poson jural la feebar boo xam ne du wér ba ilaa yow mi diin ndax daraja bi nga xamante nii nit ki nga yëkkati kàddu sofaan jëmale ko si moom moom la am si borom bi subhanahu wa taala exemple fi may jeexal léeg-léeg nga dégg ñu ne la martaba du baale am ku toog fële naan c'est vrai wala nangam vous vous êtes des intellectuels ceux qui nous suivent sont des intellectuels tey nit day porter plainte nit ñu dem ba si biir yaa ngi dégg ay nit def si médiation waxtaan ñu ne la diw kër retiré na plainte bi nga dem si procureur mu ne la d'accord tu as le droit mais l'action publique day continuer Mhm. loolu moom mooy martaba di nga tooñ nit mu ne la baal na la waaye martaba moom du la baal da lay topp donc en guise d'exemple kon nit ñi mhm. rawatina ndaw ñi nañu revenir à la raison xam ne réew mi ñoom ñoo ko moom mhm. réew mi leur l'avenir leur appartient amuñu droit salfaañi ko yow bu ñu demee ba tey jii nii foofu laa lay delloo kàddu gi événement yi ñu génn ay nit yoo xamante nii dañ si dajj ay butigu jàmbur jël ay jasneer luy jar mètre dix mille douze mille di ko jaayee deux mille ne laan jasneer de la résistance fu mu jëm <laughs> résistance. ba Jesner de la résistance. alors mu jëm donc il faut qu'on revienne sur. oustaz.